nekkoon à la une des journaux li nga xam moo ca gën a fës si yéenekaay xam naa ne dañ koy tàmbalee yéenekaay bi nga xam ne moo di libération libération li mu xëtee si xëtam bu njëkk du leen lu dul ne jàppal ne ñetti nit ñàkk nañ seen bakkan démb ak tey ca Ziguinchor ak fi nga xam ne moo ca Dakar ah, waaye nag boo leen xoolee ca Ziguinchor ka fa ñàkk bakkanam moo ngi tudd Xaasim Jee Jeeju moom ab waaye ah, waaye ah, takk der ginnaaw gi nga xam ne jàppante yu métti amoon na démb fi nga xam ne sa Ziguinchor jàpp jàpp leen ne euh, ay oto takk der wala ay naataangoom ñoo xam ne daal ñoo jaar si kawam kookee mu mujjee ñàkk li nga xam ne moo di euh, bakkanam leneen loo xam ne aussi mën nañ leen ko jox comme yéen kay ca libération moo di ndaw bi nga xam ne am na 12 ans ñàkk ba kanam euh, fee nga xam ne mooy ca kër Mbay Fall loolu daal mooy ca gën a waaye nag sa jigéen sor am na beneen ndaw joo xam ne ñàkk na ba kanam ba tey yéen kay bi nga xam ne moo di liberation moo ngi wax ne jàppale ne affrontement yu métti daal moo dox diggante démb ak tey mu mel ne sa jigéen sa Saint-Louis Mbàkke Mbuur ba ca Dakar jàppale ne daal foofee jàppante nañ ak ñi nga xam ne ñoo di takk der yi agence u Senelec bi nga xam ne moo nekkee ca Castor jàppal ne dañ koo saccagé rawatina li nga xam ne moo di station ba rawatina it nag la nga xam ne moo di Auchan ba waaye nag bu ñu xoolee ca pikin Pikine Icotaf jàppale ne Auchan boobee mën nañ wax ne ndaw ñi dañ ko saccagé waaye nag am jàppante yu métti yoo xam ne doxoon na si ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi ak ñi nga xam ne ñoo di takk der yi ba tey si yéenekaay bi nga xam ne moo di libération online moo ngi koy andiwaat yeneen loo xam ne ci Kër saar euh, fa nga xam ne moo nekkoon dépôt bus yi daal jàppale ne lu toll si bis yu bëri yoo xam ne daal jàppale ne foofee dañ leen fa saccagé ba tey yéenekaay bi nga xam ne moo di libération moo ngi koy wax ne euh, cool yi dox ci diggante Adji Raby Sarr ak Ousmane Sonko bu nekkee ne ñenn ñi ñàkk nañ seen bakkeen hmm. ñeneen ñi am ay yëngatu yëngatu yoo xam ne mën nañ ko wax seen dëkk mën nañu wax ne Ousmane Sarr moom mi nga xam ne moo di activiste jàppal ne teg nañ ko loxo ak nga xam ne moo di Ndiak Sarr moom mi nga xam ne boo ko Pastef Louga moom it teg nañ ko loxo loolu moo gën a fës li nga xam ne moo ñëw si libération bu baaxee ñu jëlaat beneen yéene kaay wax leen na nga xam moo ci gën a fës dañu dem si li nga xam ne moo di l'observateur l'observateur la mu xëtee si xëtam gu njëkk si yéene kaay du leen lu dul ne moo di Sonko Adji Sarr heure de renvoi moom naka lam ca jàpp du leen lu dul ne moo di ginnaaw gi nga xam ne le leader du Pastef Ousmane Sonko moom nee na dootul dem wuyi te booba tey nit yi jàpp ne moo ngi sa jigéen sar l'observateur tey nag la mu xëtee du leen lu dul ne moo di Adji Raby Sarr ñi xam ne dañ leen convoqué wala ñi nga xam ne ñoo ñii mën nañ wax ne ñoom ñoo ñii tey dañoo war fekkee si li nga xam ne moo di dossier du leen lu dul moo di Mamour Diallo MC Niass capitaine Touré docteur Guèye ak lu toll si euh, fukk ak juróomi témoin yoo xam ne daal ñooñee war nañ ñëw l'observateur ba tey yemu ci ab li mu xatee si xatam gu njëkk moo ngi naan si biir a dossier boobee tey dineen xam ñi nga xam ne ñoo ca bokk wala ñi nga xam ne ñooñee tey ñoom ñoo ci complot maanaam dañoo bokk si wàllum complot bi loolu daal moo ca gën a fës moom it na lam ca teg du leen lu dul ne ginnaaw ñaari at a ngi nii booba tey ñu wax mbirum coowal Adji Sarr Ousmane Sonko ñoom nag dañoo jàpp ne tey loolee eh, tey la war a fës wala loolee tey la war a gën a leer bu baaxee ñu jëlaat beneen yéenekaay wax ca la nga xam moo ca gën a fës dañuy dem ci yéenekaay bi nga xam ne moo di yor yor yor yor la mu xëtee ci xëtam gu njëkk ga avocat Ousmane Sonko maître Ciré Clédor Ly loolee la ñu gis ci xët gu njëkk ga moom naka la mu ca wax du leen lu dul ne moo di manifestation yi nga xam ne daal moo nekk di xew fee nga xam ne moo ca Ziguinchor jamono gi daal la ñu demandé du leen lu dul ne moo di CPI euh, euh, def enquête ngir xam lan moo nekk ci Ziguinchor rawatina ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëwee boobu ak tey ñu ngi leen fay buum ba tey ci biir yor yor moom nag lam ci àndi du leen leneen lu dul ne moo di affrontement yu métti yi nga xam ne dox na si diggante ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci Ziguinchor ak li nga xam ne wax du leen lu dul ne jàpp leen ne Ziguinchor mooy capitale de résistance mooy bi nga xam ne tey dañoo taxaw teem nag nangu duñu nangu koo xam ne mooy buntu xatal Ousmane Sonko ba tey si yéenikaay bi nga xam ne moo di yor yor ginnaaw gi nga xam ne Ousmane Sonko moom si Ziguinchor moom ak ay leaderu Yewwi Askan wi jàppale ne leaderu Yewwi Askan googee ku mel ne ay dëmb bocio malgré quoi certes tijane djey dembu def na a point de presse ñew ci dossier bi dox ci digënté Ousmane Sonko ak Adji Rabi Sar waye nak jëmnu gi ñom ñoñe dañu ñew ngir épauler ki nga xamné modi Ousmane Sonko ba tay ci yene kay bi nga xamné modi yor yor mom lañ ci andi du leen lu dul leen bu nekké né Ousmane ba né ci Costa wala Ousmane ba né ci Pekin jappal né ndaw ñi dañ ko sakaze. ñu jël beneen yéenekaay wax ca la nga xam moo ca gën a fës dañuy ñëw ci Walf wal Walf Quotidien moom nag lam ca xëtee xëtam bu njëkk du leen lu dul ne moo di procès par euh, contumace ginnaaw gi nga xam ne le leader du Pastef Ousmane Sonko moom nee na jamono gi du dem wuy ji tey nag yéenekaay bi lam ca samp laaj du leen lu dul bu nekkee ne Ousmane Sonko demul wuy ji ñu àtte ko ci ginnaawam lan moo ko ca mën a fekk ba tey Walf Quotidien la mu xam ne xëyee na ko du leneen lu dul ne moo di expolis maanaam manam eh, tay ciow li nga xamne mo am fi nga xamne mo ci eh, zigen sor way nak lam ci wax du len lu dul ne modi eh, policier bi nga xamne mën nañ wax ne ab ben belende mo jaar ci kom koke mu ñak li nga xamne modi bakenam way nak ci saint louis nga japp le ne ndaw ñi dañu tal auto li nga xamne modi auto tak deri lolu le fossé ci yene kayam bu baaxee ñu jël yéen kaay yu ma jàmbal bi nga xam ne moo di le quotidien moom nag la mu xotee si xatam ju ndëkk du leen lu dul ne moo di non de Sonko à son procès de décès moom nag la mu ci wax du leen lu dul ne moo di lan la Ousmane Sonko nara euh, lan moo nara dal Ousmane Sonko bu nekkee ne ñëwul wuy si loolee du leen lu dul ne moo di jugement par euh, contumace moom nag ba tey yamu ca du leen lu dul ne moo di tey ñëwaat na si anum gi nga xam ne ñenn si lañ ñàkkee seen ba euh, bakken démb ak bataille ba les leneen li nga xam mom la ci andi du médiateur de la République mom lam ci wax du leen lu ne on peut pas concevoir d'un état de droit dans laquelle on se défie la loi mu melni ni ne Ousmane Sonko lay waxal ne mënuñoo nekk ci état de droit bo xam ne bu la loi goge wowe yow nga baña dem wuy ñu dem ca beneen yéenekaay jël ca la nga xamu ca gën a fës la turbine la turbine journaalu Bougane Gueye Dany gi moom it ba tey ñëw ci l'affaire de Adji Raby Sarr Ousmane Sonko lam ca wax du leen lu dul ne moo di affaire sanglate suite beauté moom nag lam ca wax du leen lu dul mën nañ wax ne bu nekk ni ñaari at a ngi nii booba tey am nañu toll ci fukk ak ñeenti nit yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkeen démb tey amati yeneen ñaar ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkeen looloo tax yéenekaay bi xëtee ne xëttam gu njëkk ne fi ñu toll daal jàppale nañ noté lu toll ci si 17 morts si diggante li dox si diggante Adji Raby Sarr Ousmane leneen li nga xam ne moo ca gën a fës du lenn lu dul ne moo di Bougane Gueye Dany jamono gi moom moomee moo ngi Paris waaye moo ngi demandé ndaw ñi ñu gën a am vigilance jàppale ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ba tey ñu yemaat si beneen dossier coow li nga xam ne moo dox si ñaari député yi nga xam ne moo di moo moo di ñaari député yi nga xam ne moo di Samba ak Niang tey ñu tegoon leen loxo jàpp leen daal démb lañ leen àttee lu toll si six mois yoo xam ne moom la ñu war a tëdd bu ñu sukkandikoo si yéenekaay bi nga xam ne moo di la turbine moom nag lam ca wax du leen lu ne moo di ñooñi loolee taxul ñu ba a ñàkk seen mandat député looloo ci gën a fës ñu jëlaat beneen yéenekaay jël la mandat la mandat la mu xëtee si xëtam bu njëkk du leen lu dul ne moo di procès Ousmane Sonko Adji Raby Sarr moom nag lam ca wax du leen lu dul ne Ndakaaru ba see Ziguinchor démb leneen loo xam ne mën nañ ko ci di wax moo di euh, plateforme bi nga xam ne moom la ñu mën a woowee F24 nag ñoom nag jamono gi mu mel ni dañu taxaw teem ngir jàppale Ousmane Sonko ñoom ñooñee la ñu demandé du leen lu du ne moo di procès boo xam ne day am équitable waaye nag procès boo xam ne mën nañu wax ne yoon rek mooy def li nga xam ne moo di moo di liggéeyam ñu jëlaat beneen yéenekaay wax ca la nga xam moo ca gën a fës lii quotidien ba tey moom si F24 la ñëw si procès Adji Raby Sarr ak Ousmane Sonko ñoom ñoo ñee la ñuy demandé du leen lu dul ne euh, procès boo xam ne juste et équitable waaye nag la nga xam ne moom lañ cee wax du leen lu dul ne nos autorités yi garantil ne Ousmane Sonko dinañ ko respecté jox li nga xam ne moo di àq ak yelleefam moom moomee ngir mu mun a fekkee si li nga xam ne moo di procès bi ba tey F24 yemu ca leneen li nga xam ne moom da cee yëkkati comme kàddu du leen lu dul ne ñoo ngi metti lu anim gi nga xam ne noonu lañ accéléré dossier Adji Sarr Ousmane Sonko waaye ñoom it nga nga xam ne ñoo di F24 jàppale ne tey bu 15 heures jotee fee ci Harmattan fas nañ fa def point de presse ñëw si dossier bi nga xam ne moo dox si diggante Ousmane Sonko ak Adji Raby Sarr ba tey ñu des si lii quotidien wax si si l'affaire Adjara Bi Sarr Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo si policier bi nga xam ne moo ñàkk bakkanam ki nga xam ne moo di Antoine Diome moom mi nga xam ne moo jiite ministre de l' moom mi nga xam ne moo jiite ministère de l' intérieur moom nag lam ca wax du leen lu dul ne moo ngi masawu ki nga xam ne moo ca ñàkk bakkanam loole daal moom la ca wax waaye bu ñu sukkandikoo si ay avocat Ousmane Sonko ñoom nag jamono gi lañ ca wax du leen lu dul ne moo di Ousmane Sonko jotul ko convocation bi tax mu mën a dem wuy ji fee nga xam ne mooy ca tribunal ñu jël bi ne kaay wax ca la ca gën a fës xam na ne les échos foofu lañ koy tëjee les la nga xam ne moom la ca wax du leen lu dul ne moo di ginnaaw gi nga xam ne le leader du Pastef booba tey moo ngi fa moo ngi fa nga xam ne moo ca Ziguinchor ñoom nag la ñu jàpp du leen lu dul ne boo xefule loolee dinañ ko renvoyé waaye nag bu ñu xoolee Adji Sarr Ndeye Khady Ndiaye docteur Guèye docteur Gaye ak maanaam ki nga xam ne moo di capitaine Touré jàppale ne ñoom ñoo ñi ñëpp dinañ ñëw fa nga xam ne mooy ca tribunal waaye nag yéeni kaay ba lañ ca wax du leen lu dul ne jàppale ne Ousmane Sonko de euh, moom moom dëggal na kàddu ya nga xam ne moom la yëkkate woon du leen lu dul ne mooy dootul wéete fa nga xam ne mooy yoonum Sénégal ba tey les échos foofu lañ koy tëjee lam ca wax du leen lu dul ne moo di les populations s'approprient la euh, euh, désobéissance civile mu mel ne tey ginnaaw gi le leader du Pastef Ousmane Sonko nee na bu kenn respecté ti yoonum Sénégal ndaxte yoon googee respecté wul li nga xam ne moo di àq ak yelleefam loolu la tax les échos ñëw ne ca Ziguinchor jàppale ne démb jàppante yu metti moo fa am ba ñàkk fa ay bakken waaye nag ab benn policier bu fa ñàkk ay bakken ah, bu fa ñàkk bakkenam ba tey les échos leneen li nga xam ne moom la ci yëkkati ay kàddu du leen lu dul ne jàppale ne jamono gi Ousmane Sonko naam ñu bëri ñoo ngi wax ne moo ngi Ziguinchor waaye jàppale ne kenn mënu koo teg bët ca Kasoor ca Pikine jàppal ne lépp lu fay osa ndaw ña dañ koo taal en tout loolu daal moo ci gën a fës les échos la nga xam ne moom la tëjee si xëtam gu njëkk du leen lu dul ne moo di tey jàppal ne Jakarta wala moto benn dawul waaye nag rawatina li nga xam ne moo di école yi jàppal ne kenn jàngiwul loolu daal moo gënoon fës si li nga xam ne moo ñëw si à la une des journaux xam naa ne dañu